asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mais 21 mai 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi sunu làmb nag tey fa la muy xëyati yëglikaay ba xëyati ñëwati rek ci combat bi olof nee na lu dafa waxu lu aay di njàmbat diggante Lac de Guiers numéro 2 ak kii nga xam ne nii moo di booy Niang bu dégool yëglikaay bi nag tey xëy wan ñu Lac de Guiers boo xam ne day mu ngay dànkaa footi booy ñang rek moom daal la mu ko xamal daal mooy na ab kuwam day su ma su ko sama loxo dalee daal na ko leer na bu keroogee day ñu koy force nu sonn moom ndax daanu ba dana gaaw lool ci moom ñu ne ko xeex mu ne loolu mënta ñàkk sama diggante ak moom dana nu xeex te moom dina xeex xeex boo xam ne ba muy bëre ba tey mësu koo xeex Lac de Guiers numéro 2 mooy wax ñu ne ko ndax booy ñang mérito na bëre ak yow mu ne waaw mérito ko moo tax muy bëre ak man moom ba tey Lac de Guiers numéro 2 mooy wax de moom daal tey ñëw ci lu baax lu baree baree bari ci combat bi waaye itam am na loo xam ne day wax na ca ne na digganteem ak kii nga xam ne moo di Balla Gaye 2 day la nga koy leeral ne na na leer nañu ci bopp sénégalais yi maag Balla Gaye 2 amul problème tey suba waxi noppi ci jàmm rek la ñu nekk te ci la ñuy masane mu mel ni lak daal tey xëy na ngar daaju yëglikaay bi wax ay soxlaam leneen loo xam ne tamit ñëw na ca ne lamb ji moom bu dee juróomi mbër yi fi dàq bëre mu ne ko léegi nag mu ne maa nga ca biir ca laa bokk làmb ji man jàpp naa ne amul ku ma fi dàq bëre wala bu ñuy ñuy tànn juróomi bokk damay bokk ca biir man la dëgër numéro deux loolu daal la xëy tey di ko wax waaye nag am na loo xam ne day wax na ko wala loo xam ne wan nañ ñu ko ci ñoom ñaari mbër yi muy moog booy ñang mu mel ni fi mu nekk nii ci seen wàllum entraînement daal jàppal lañ ca gën di liggéey day bokk na ci côté xeex bi mu mel ni ki daal bis ba moom buñ ca yeggee sunu lam ne na ñaar ñii day boo sàgganee xeex moom la ñu fas yéenee def ba dugg boîte vocale waaye leneen loo xam ne nag Lac de da caa jeexale mooy digganteem ak wuy juróom wu jigéen wa nga xam ne génnoon na àddina heure bii daaw Lac day sëy nee na li leer ba leer day sama yaay moom manqué na ma lool lool lool loolu waxi Lac de Guiers numéro 2 la ci yëglekaay bi nga xam ne moo di suñu làmb keneen koo xam ne moom dafa xëy di wax ci ñaar mooy coach su jabong ma ca France diggante Gris 2 la ñëwati ak Reug Reug nekkati beneen coow ci beneen combat ci jeneen làmb mu mel ni ki nag nee na ñaar ñii day coach su jabong nee na ci côté xeex moom boo bëggee dégg dëgg kii di Gris moom li mu war a def day mooy attaquer Reug Reug ak ay korosé bañ koo may daal ak nàkkam moo xëy dalal ko muy wax waaye kii Reug Reug moom la mu ko digal mooy jamono jooju muy digal Gris 2 loolu ne na ko yow bu keroogee moom na nga privilégié sa maanaam bëre ak lu jëm ci wàllum attente bi maanaam daal xaar def ndànk tekk-tekk tempo tempo ko su jamo nga xëy tey di wax lool ci sunu lamb leneen loo xam ne tamit gis nañ ko ci sunu lamb mooy Moussa Ndoye boo xam ne day sunu journal bi nee na ginnaaw nag bañ ko daanee léegi di seere na ba mu nga réewum France moom Moussa Ndoye ci yoo xam ne daal war na ko faa def sunu lamb xëy tey dinu wax loolu leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fii nga xam ne nii moo di ca sunu làmb mooy écrit xam sa cosaan bu ñoom soq écrit ba day daa mel ni fi mu nekk nii day ah bu leen yeboo day wala ku leen di déglu neel kaar ndax nag ñu ngay doxal ndam yooyu ñëw macha allah sunu làmb xëy tey di ko wax soq dafa daan daan fal ond la fu daan aada faas te na yeneen xale yoo xam ne day ñu ngay wane seen bopp ku mel ni ëmb seen junior ak darso mel ni ki daal xam sa cosaan moom fi mu nekk nii moom ni ñuy doxee day daa mel ni baax na lool ci ñoom keneen koo xam ne moom magum làmb la ñëw na ci yëglikaay bi di sunu làmb wala mu yàgg ci làmb ji lool muy grand Modou Bey moom day dina amut mbir ci làmb ji li mu am daal mooy ñëpp ay doomam lañu faru teg kii kële waxi noppi waaye dañ fay jóge nag dem fii nga xam ne mooy ci Leewtoo point Xaadim Gajaga ginnaaw bañ ko falee ne ko léegi nag yaay président Rock Énergie Xaadim wax na la mu bëgg ne li ma bëgg lenn la kii nga xam ne daal moo di Modou Lo laa bëgg def roi des arènes ci présidence gii nga xam ne fal nañ ma ko ci Rock Énergie nee na daal moom objectif bi mu am daal mooy Modou Lo dégg roi des arènes mu mel ni ki nag xaadim day loolu ci Leewtoo point net la di ko wax leneen loo xam ne tamit dañ cay dellu siwaat rek muy fii nga xam ne ni moo doon ca seen âge booba mu mel ni ki nag léegi lañ fa lu daal moo doon papis bu xarañ loo gisuñu ko fa ak kii nga xam ne moo di biram ning seex Sow nag léegi ne nañ moom mooy conseil spécial lu Xaadim Gajaga yëglikaay yi ñoo xëy tey dina ko wax keneen koo xam ne moom mu ngi ci yëglikaay bii di sunu làmb ca làmbi simple ja la moom seex Pouy Cheikh Pouy day nee na li mu bëgg day mooy remporter li nga xam ne nii moo di ab tournoi ndax nee na loolu day Bachir tamit ci ay supporter am wala ñu ko bëgg Cheikh Pouye xëy tey di ko wax ne na depuis 2000 ba tey de mu ngi ci làmb ji di bëree lii li wàllum li simple te masut a gagné ab drapeau wala boog bu gagné ab drapeau benn yoon la mas a gagné ab drapeau fii nga xam ne moo doon ca Adrien Senghor waaye loo xam ne nii day doy na waar wala waras na cee wax xanaa làmb ji léegi dafa am wàllum voyage dem bitim réew koog mbër yu ma gëj a gis tey ñoom laa gis seng-seng mama xamoon lay coppet ak kii nga xam ne moo di yor mu mel ni kii daal mbir yi daa mel ni day réewum tubaab yi fi mu nekk nii saf na leen sàpp Matar Gueye mu nga Italie Sente la nga France Basoka nga États-Unis ñeneen ak ñeneen waaye Pape Diop numéro 2 mu nga Milan ca itali mbir yi lan la ñu dégg ci réewi tubaab yi man war nañ ma koo wax wala bu ñuy demati nañu ma yóbbaale maag Talla Ndiaye ak ku bëgg a dem wala boog xanaa vacances dina am ndax wax ji metti na reportage yi metti na te réew mi saf na sap nopp lu day baax olof ne na njàng am na àllarba. maaleykum mbokk yi sur Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen ci seen revue de l'arène comme ni ñu koy defee chaque jour di si ànd ak euh, sama mag sama xarit Babacar nuyu naa la. Aïssa Faye fay naa la ah maa ngi lay nuyu di la ziar comme ni nga ko waxee rek yow sama rakk nga sama xarit nga macha allah madame Niang maa ngi lay bëgg bu baax a baax di nuyu internautes yi ñuy suivre ñëpp fu ñu mën nekk si àddina bi rek. ñu ngi leen di ziar tey ci mardi bi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci ñoom ah, di leen balwaaxa bu baax a baax waaw Babacar dañuy dugg ci waxtaan bi ak euh, Lac de Guiers 2 euh, ginnaaw bi Boy Niang tam euh, defee sorti sunu lomb ñëw na ci sorti nga xam ne ni mooy bu Lac de Guiers 2 mu ñëw ci digganteem ak Balla Gaye di xamal ni diggante ba mu macha allah tax dong la def mais tamit ñëw na ci ki nga xam ne nii mooy waajuram bu jigéen bi fi jóge woon daaw di xamal ni tamit que moom manqué na ko torop torop bu duñ toll nii. parce que boo xoolee mën nañu sax suñu làmb xam naa dañoo xaw a kii parce que boo xoolee fan yële génnoon na ba wax boo xoolee moo jukkoon wax Boy Niang jàngatoon nañ la mu waxoon ci Lutte TV ci ay vidéo Boy Niang tamit ñëw wax journal bi nag ñëwaat na ci Lac de Guiers comme ni ñu jéem si Boy Niang Ah, li mu wax nag si digganteem ak Balla Gaye numéro 2 maanaam comme que ni jàmm moo am seen diggante amuñu problème defe naa loolu war nañ ko mën a gëm et war nañ ko mën a nangul te man damay wax ne que sax ay satu ay diggante ay doomu ñu war a ànd li mooy ñu di leen di ñaanal chaque jour ñu am jàmm di ànd wax des fois nag euh, ay ñàkk bokk xalaat wala ñàkk a bokk gis loolu du du problème yaa ngi dégg ñoom ñaar nag ñoo bokk fa ñu dëkk di Géejawaay yàgg nañ leen a gis ci làmb ñuy ànd di seq lu ne kon nag defe naa te tey defe naa fi ñu toll nii actuellement la ñu gën a mature a nekk a nekk ay kilifa gën a am responsabilité kon xalaat naa du ñu ñëw ba yegg si fii war a yàq seen ànd ci ay détails yaakaar naa muy Balla muy Lac de Guiers 2 war nañu dépasser foofu parce que tey Balla moom 2005 wala 2006 2007 ak Lac de Guiers moom 2005 2006 war ta bokk ak bi nekk 2019 bii c'est pas la même chose warul demee noonu parce que ay mag lañu ñu léegi ak lu mën a xew ay borom kër la ñu kon daal dañ leen di ñaanal di ko ñaanal képp koo xam ne am nga ak nit relation yàlla na yàlla sàmm relation boobu te rataxal ko loolu lañ leen di ñaanal ñoom ñëpp ah comme li wax tamit si côté yaayam loolu tamit dañ ko koy jaalewaat encore une fois di jaale bépp doomu mu tëdd di suuf parce que yaay moom ku ko ñàkk wax dëgg yàlla mën nga ne bànqaas bu rëy rëy faaxe ko na faaxe na ci yow su suma yaay joo xam ne sax euh, comme niñ ko xamee woon parce que la dëgër lu bëri ci li ñu seetlu si moom dafa amoon affinité bu doy waar diggante ak bu jigéen boobu waaw loolu nag dafay dem ba nga xam ne boo ko manqué ah dina feeñ ci yow mais dañ koy wax rek mu muñ parce que àddina demee noonu eh, ñi faatu comme ni ma koy waxee ñàkkuñu fulla ba dem waaye ñi fi des itam fulla bàyyiwu leen fi mais lépp dogali suñu borom la daal di ñaanal néew yëpp wala way dawlu yëpp ci weeru koor wi yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen barke yonente bi sallallahu alayhi Amina lañ ci mën a tekk Babacar daal di dem seet ki nga xam ne ni mooy euh, coach Jabon coach Jabon tamit ñëw di aborder li nga xam ne ni mooy combat bi war a dox diggante Gris ak euh, Reug Reug incha allah le 15 euh, le 15 juin la war a doon mu ñoom tamit ñëw na si ku nekk nan la war a ñëwee ci combat bi kii di Gris mu koy digal ni bu ñëwee na attaqué. na jéem a dox si kaw ki nga xam ne ni mooy rëg-rëg mais bu dee rëg-rëg moom nee ko na def ndànk euh, daal di jéem a li nga xam ne ni mooy bëre bi waaw coach Diama mu koy nuyu di ko ziar sama xarit la moom mu ngi ba France maa ngi koy ziar bu baax a baax sama waaye la nit ku baax la gis nga daal yi ma sol nii sax ba coach Diama moo ma ko jox kon coach maa ngi lay ziar euh, moom nag yaakaar naa li mu nekk muy wàllum boxe ci liggéey xam na ko bu baax baax parce que su ma juumul lépp ci li muy pratiquer France loolu si la bokk kon defe naa war mën a xam lan mooy xeex ak nuñ koy defee waaw combat boobu nag te la mu ci euh, rëg-rëg tamit que ni moom mu privilégié li nga nga xam ne nii moom mooy euh, comme maanaam bëre ak xaw a euh, yàggal tuuti combat nag waxu borom xam-xam la maanaam mu jël temps borom xam-xam ne ñoom ñaar tey mën nga xalaat sax nekk Gris xeex bi arrangé ko mu ñëw bëre gën ko arrangé nga xalaat ne Reug Reug bi moo koy arrangé mu ñëw xeex bi gën ko arrangé parce que lamb moo demee noonu parce que lu may wax chaque jour ak Aïssatou lamb réalité géew fa am te saa yu ñu yeggee si géew bi des la muy wane du bokk des ak la ñu woon sax wala ak la foogoon. léeg-léeg Babacar sa encadrement technique euh, da lay jox euh, consigne ne la bëril nangam mais nga dem gis beneen réalité si terrain bi nga daal di génnee si feem bopp pour mun a génn ci combat bi. waaw noonu la fa demee nag parce que boo maa ngi rappelé wu Lac de Guerre numéro un ak Tafa gi seen combat. bi bi ko Tafa di daan stade Demba ba Tafa Gueye magam ba làmb ja jeex muy mbéy gi dana digalu wuñ ko sax mu bëre lii mais xëy na moom moo dem ba ci biir bëri bi mu xam ne lii nii la war a demee làmb ji lii la laaj mu exploité action boobu yoonam parce que làmb noonu la da ngay ñëw ngeen entraîné ci nangam ay nga ñëw ba ci bi gis lu gën a gaaw nga def ko yaa ngi dégg dañ ne booy dem di aji ji màkka ba xëy daje ba di génn sa kër daje kaabi sa buntu kër loo fay wutee di da ngay siyaare dëpp noonu la fa demee mm. waa xëy na côté boobu moo tax ba nga xam ne tey ah, Euh, làmb demee noonu daal dafa am ay réalité surtout ci géew bi nag waaw. Babacar ñu dem seeti Khadim Gadiaga fee ca Leewtoo point mu ñëw ci mission yi nga xam ne nii mi ngi koy xaar mais dafa jël benn mission def ko mooy mission numéro un mu daal di doon euh, jël ki nga xam ne mooy Modou Lo def ko roi des arènes moom la def première mission ci euh, nguur gi mu ko entamé nii. ah waa Khadim ñu koy nuyu di ko ziar sëñ Khadim mu ne mission bu njëkk mooy fexe Modou Lo nekk roi des arènes ah olof dañu maanaam. Euh, nan nan lañ koy waxeeti sax fi mu nekk nii daal xam nga lu fi nekk olof ne ne wasin maa dem tool léegi moom wax ji jaratu ko parce que lu la mu bëggoon wala la waa écrit ba bëggoon ko maanaam tabb nañ ko mu nekk seen président mu loolu yàlla mu am combat yàlla def tamit mu am combat bu nga xam ne roi des arènes lay xëccoo ji te comme koy xëccool Modou Lo da koo danoon xaadim ne loolu objectif am mooy maanaam mu def Modou roi des arènes kon bis affaire baa ngi noonu léegi amatul amatul xiili xaala non ay weer yu néew ci des mois de juillet le 28 juillet incha allahu rabbi yàlla nañ ko fekkete tal ko ndax da koy def roi des ci moom présidence bi mu nekk ñu xool ñu yónni yàgg ba xam ndax loolu da du du antu ba tey dañuy yónni yàgg waaye li ma ko mën a xamal daal mooy euh, combat bi mu jëm moom Modou wala ma koy wax muy Eumeu Sène wala Khadim Gadiaga moom muy wax sax dañ jàpp ne combat bu difficile la parce que ba Eumeu Sène xalaatul cim xelam moom que ni roi des arènes bi nga xam ne jot na ci li nekk première sorteem ni mu ci sonne balaa lu ne galère bu ne mu daj ko si lam ba yàlla def tey li mu jot mu jot ci mu ñëw di ko asaaloo noonu di ko ñàkk si boppam néewul si bopp waa Pikine mu loolu tamit li mu jógee dafa tar lool ci moom defet boo xam ne nii vraiment defet ba daan ba ko Balla Gaye daan dafa doy waar loolu nag li mu bëgg ci xelam mooy effacé ko kon daal li am solo mooy <laughs> combat non dina metti te dana tar yàlla nañ ko fekkete tal ko Aïssatou Faye waaw Moussa Ndoye mi nga xam ne ni bëre woon na fa temps yi passé ak euh, kii di Garga moom nag fu toll nii ma France def pour euh, un mois loolu la ñu sunu xamal mais tamit festival dañ ne ñu ngi foofu noonu Babacar waaw Moussa Ndoye ñu koy encouragé comme ah, ñi mooy que ñu daan la sur nga jóg fi nga daanoo dem fekk sa adversaire fan nga joxe drapeau nga félicité ko ba tax tey toll ministère des sports woola rafetlu loolu kon Moussa Ndoye loolu dañ ko ci euh, félicité sa boobu mu def moom ak Garga adversaire am ñuy nekk ay athlètes nga xam ne ay sportif la vraiment yu xam sport di ko nag bu demee France pour un mois xëy na pour dallu ak nangam su wala bu invité ko ci benn festival loolu mooy li lay wax rek euh, xale la Moussa gëj na soppeem ñu ngi koy sopp parce que dañ ko invité foofu pour mu dem fa comme ni nga xam ne gis nañ fa ay mbër yoo xam ne nañ leen a gis mm. ay ay mopol xam nga ay seng seng ay jos si ñoo ñoom mbër yooyu yëpp ñu ngi waaw maa ngi leen di tooñ sax ne mbër lu xew ñoom ñëpp ñu ngi dem bitim réew réew mais neexul wala qu'est-ce a waaw mais Sénégal moom jàmm ngi fi parce que jàmm mooy lépp kon ñu leen di ñaan ñoom mbër yi bitim réew yëpp tey liggéey ak bépp Sénégal fu mu mën ne yàlla na yàlla defal leen lu kawe seen jor ci fa ñu nekk di fa daan seen doole waaw amin Babacar ñu dem jeexal ak lu simple bi muy parti ak waa sunu lamb waxtaan ak ñoom moom daal euh, li muy xamal ni mooy du mbër carrément defu ko métier moom maçon la mais dafa bëgg am au moins jamono ji ngi toll benn drapeau ngir rek bégal ñi nga xam ne ñooy ay soppeem parce que moom depuis 2000 benn drapeau dong la amagu muy bëgg nag ah, na day ah, si làmb ji ba tey parce que bëgg ko ndeysaan moo tax chaque instant boo demee àddina sangoor da koy gis mu ngembu te yàlla dogal na xëy ci ni mu waxee benn tournoi la fa gagné gu mësugu euh, la mooy métier kon dañ koy wax ne ko rek na gën a góorgóorlu olof na xëcc bu dagul combat yi parce que tamit nit athlète euh, mbër la bi nga xam ne wala boog dama koy gis koo xam ne la daal euh, dina ñëw participer doo ko daan mu ne fa di contester day jóg demu yoonam kon ah euh, euh, na jàpp bañ a bàyyi rek xëy na bu jàppee bañ a bàyyi yàlla mën naa def sa balaa saison bay jeex mu am fa benn tour mu am fa benn trophée pour bëggal ci ay soppeem. kii bi na tar dafa tar parce que Adrien Senghor saa yu ñu laa teg nañ fa un million wala cinq cent mille ay kan ay ay kan du sa fay wàcc ay ponkal ñooñu nag moom ah xamuñu xamuñu ab maçon ak ab journaliste ak ak ab jaaykatu caaf ak yooyu noonu ñoom la ñu xam daal mooy bu arbitre bu soufflé xaalis ba ñuy teg seen bët buñ lëppee dool dañ la koy jaay ñuy nuyu groupe Leewtoo bi yëpp ah di leen ziar di nuyu taala comme ni ñu ko waxee tamit di nuyu ñi ne ñu mën a nekk ñoom Mansour Dieng gis leen si euh, Abdou di nuyu tamit soppe Babacar a a koy waxee tuuti euh, di moins tamit waa Dubaï yaa dégg dama leen di nuyu bu baax a baax a ni Elas Ndour ak Gambien ak Sénégal yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax